coutumier yi moo wax état ñooy ànd comme coutumier yi moo wax état ñooy ànd état na fexe ba woo ñu lañ daan defal ñi fi nekk ñu defal ko ñi fi nekk président dégg li ma wax de lañ daan defal président yi fi nekk ñu defal la ko yaay président nag ñu woo ñu wax ci collectivité lébu coutumier yi moo wax état ñooy ànd comme coutumier moo wax état ñooy ànd état na fexe ba wooñu lañ daan defal ñi fi nekk ñu defal ko ñi fi nekk président dégg li ma wax de lañ daan defal président yi fi nekk ñu defal la ko yaay président nag ñu woo ñu wax ci